إله وفي الأرض إله والصلاة والسلام على من أسري به ليلا سيدنا ومولانا محمد من نال ما نال نيلا وعلى آله وأصحابه غر المحجلين وسم المبجلين مشاهدين الكرام متابعين عبر تلفزة المفضلة تلفزيون فيتور ميديا نحييكم بتحت الإسلامية ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبكي جينا بن سنت يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futur Média nuyu leen ziyaar leen ndokkee leen bu baax a baax a baax ñaanati borom bi subhanahu wa taala yàlla mi am jàmm am salaam sutura àddina ak alaxira yal na yàlla doole nu ko defal nuyu bu baax baax a baax mboolem xalif généraux yi na ci biir réew mi ñaanal leen ñu yàgg fi lool te wér lool nuyu njiitu réew mi nuyu kilifa yi réew mi yëpp ñaanati borom bi subhanahu wa taala réew mi yal na fi yàlla doole jàmm nuyu borom kër gi si El Hadji Youssou Ndour ak mboolem sunu directeur yi nekk ci biir kër gi ñoom itam yal na yàlla yokk leen dëgëral ci darajey Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gërëm bu baax a baax sëriñ ji li ñangu fi bàyyikoo léegi mbokk mi ngi noonu ñaanati yàlla yàlla defar sunu mbiri àddina àddina waaye itam yàlla defar sunu mbiru àllaaxira ñaanati borom bi subhanahu wa taala ñaan ko moom yàlla ñaan ko saa yu ñu xëyee sunu cofeel ci Seydina Muhammad di gën a dolliku saa yu ñu xëyee sunu cofeel ci di gën a dolliku lépp lu ñuy julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla jottalil ko ko moom Seydina Muhammad mu la waxoon naa la ni la réew mënul dox te doxunu doxinu rasulullahi ma waxoon la ni la jamono mënul dox te doxunu doxinu Seydina Muhammad waaye itam nit mënul jag te jëlul ay jikkoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ca mbaaxam nga ca yiiwam nga ca xam nga àddina ca euh, jéggale ka jële la ga euh, doo gën a euh, nekk kilifa gën a doon kilifa gaa yi ba noppi gën leen a gën leen a wàcc moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi sa sallam daan toroxlu moom yonent bi alayhi salatu wasalaam bëggam nga borom bi subhanahu wa taala waaye itam ca fit wi ko borom bi subhanahu wa taala joxoon yitteem dëgg mooy lu sauver xeet wi ndax moom mbaaxam gu jéggi dayo ga ci yërmandeem gu kawe ga moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëggul kenn dem safara bu sañoon ñëppee demal aljanna yonent boobu nag bu nu yàlla xéewale ñu bokkuñu ñu xeetam kooku sauvetage la àddina ak alaxira bu fekkee yëg nga loolu waaye itam bu fekkee xam nga loolu sallallahu alayhi wa sallam yal nañ ko yàlla doole bëgguloo mbokk mi noonu ñaanati borom bi subhanahu wa taala sunu saa yu ñu xëyee sunu cofeel ci moom yàlla na gën a yokk dafa sonn moom Seydina coono bu nekk daj na ko coono bu ne daj na ko waaye taxul benn yoon mu mere xeet wi ndax bu sañoon ñépp dem aljanna waaw waaye boo xoolee li mu dund ni mu gàttee ak mission bi ko yàlla ni ko yàlla yónnee ni mu gàttee ak fi ko yàlla jaarale fi mu jaar yépp ci njàmbaar ga nga xam ne dafa sonn waaye ma wax la tey boo xam ni dem na tukki na mais tukkim boobu ci coobareem la moom rasulullahi bu fekkee nga mën maa dégg ñu ni Seydina Muhammad kat am na ci boo xam ni yàlla seetaan na mu mel ni dafay def examen moom rasulullahi nga ni keroog la at mi moom Seydina Muhammad nga mën a dégg waxin la nga ni keroog la at mi moom yonentu bi alayhi salaatu wasalaam parce que tukkim boobu mu tukki yàlla sant ko ko yàlla toog na màkk ga mu nekkoon abu taalib baay ba dee na xadija soxnaam sa dee na ngir nañu dee nañu am na ku ni ma dee dafa bu baal di wax dee dee la ñu wax yàlla dee la wax noonu wax na ko rasulullah ne ko in ne ko ne ko innaka mayitun innaka yow rasulullahi mayitun da ngay dee wa innahu mayituuna waxal sa gaa yit dañuy dee abu taalib mi ko yar bokk ak abdullahi mi ko jur ndey ak baay Abu Talib génn dina dee ñu teg ñetti fan Xadija génn àddina waaw Màkka mel ni dañoo bég ca loola parce que amuñu woon fitu song rasulullah gi parce que ñaaru ko séq mbaay bu saaxoo yàlla yàlla yokku leeram daan na wax ni kii day kilifa tamay Abu Talib bari doom ñuy jàmbaar waa Màkka rus ko Xadijatu di jigéen alalu màkk boo ko xaajee ñaar xadijaa moom genn wàll gi waa màkk wekk ko bàyyi bu saaxoone ku nu ku nu wekk nag ku nu nga ñoŋ ah ku nu rus ak ku nu wekk ñaar ñooñu ku nu séq nga ñoŋ abu taalib génn àddina boobu na Muhammad mi ngi am 49 ans 8 mois 11 jour ñu laaj ko Cheikh Sidi El Hadj Malick mu ni wa ama duhmin thamani ashhurin wa ayyin yawman tawaamuhu nasara za zamami gis nga samaam foofa dalaa wax at wax la mois wax la jour wa ama duhumin deel 4 la hël kubeer 5 la 4 plus 5 loo ma wax 4 plus 5 laa loo ma wax 9 ramassel ma mimika 40 la 40 plus 9 49 49 ans wa ama duhumin atum ñeen fukk juróom-ñeentam samaani ashurin yu teg juróom-ñetti weer wa ayin ak fukk benn ñu ni waaw fukk benn ci lan alif 1 yaa 10 1 plus 10 loo ma wax 11 wa ayin ak fukk ak benn mu ne yow man ciy bis tey góor gi kon 49 ans yi rasulullahi ñin fukki atam ak juróom-ñeentam yu teg juróom-ñetti weer fukki fan ak benn ci la Seydina Muhammad am Abu Talib gi dina ñu teg ñetti fan. ñu tax ñetti fan soxnaam su baax sa génn àddina tamay Xadijatu li ko màkk doon nëbbal nag ci noone ñu tàmbali koo feeñal wa baada sabbin wa tadlilin wa tashfihatin axfaw lahu kulla ma axfawhu min idami boobu lislaam baa ngay ñëw waaye ñuy dugg ci lislaam ñu néew doole lanu ñu néew doole amuñu xaalis néew nañu doole ñii ay jaam lañu woon ñii seeni waajur amuñu xaalis waa Màkka yilif leen ñoom seeni doom tàmbalee topp rasulullahi boobu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa am na ñuy dugg si waaye ña ca am doole am ci xaalis bariwul ku mel ni Sidna ku mel ni Sidna Usmaan bariwul woon ci saxaaba yi waa Makka nag ña ngay def ay séminaire di réunion ne nañu fexe nañu reyee waa ji parce que kii teere nañ ko mu të nañu ko rey ci la Seydina Muhammad nag départ tukki tukki boobu nga xam ni ci xalaatu boppam la sallallahu alayhi wa sallam mu ni ku am kër ndey am nga kër baay ci la génn Makka wax ni ma ngay dem Taayif moom yonentu bi alayhi salaatu wa salaam taayif nag ay ndijaayam dañ fa dëkk parce que Abdoulaye mi ko jur mi ngi bokk gir Qurayshin waaye teewul Amina mi jur Seydina Muhammad mbokk Rasulullaay la ndax nit mën nga koo jur te bokk ak baayam dara waaye Amina dafa bokk ak Abdoulaye mi ko jur Rasul juddoo Makka bokk ci famille bu ñuy wax gir Qurayshin Abdoulaye jur ko Abdul Mutalib jur ko Hachim jur ko Abdou Manaf jur ko Xusay jur ko Kilaab jur ko Murata jur ko Kaab jur ko Luway jur ko Xaalib jur ko Fihri jur ko Malik jur ko Nadar jur ko Kinaanata jur ko Xusaymata jur ko Mudrikata jur ko Ilyas jur ko Mudar jur ko Nizar jur ko Maad jur ko Adnan jur ko ay fameem nekk Makkatal Mukarram te la Sidina Muhammad wax ni ma ngay départ dem ci ay ndijaayam pour ñu dimbali ko ci mission bi ko yàlla yónni parce que sonn na ca makkatal mu karam wala wax ni ku say teraanga yokk say noon yokk ay mbokkam lenn ci ay mbokkam bañ rasulullahi ku mi ni mun sur ibnu akrama nga xam ne moo bindoon kayit ga mu ñu ko embargo wax nañu ni embargo boobu nu ko embargo am na borom xam-xam yu wax ni naqar googu feebar boobu moo rey Xadija da koo naqar lu ba dee sa jëkkër ak ni nga xamee sa borom kër sa borom kër ni ko sa borom kër nga xam ko bi mu amee vingt cinq ans deux mois quinze jours ñu may ko xadijatu mu nekk ak moom xadija xam mbaax bi nekk ci rasulullah yi xam tab gi nekk ci sayyidina muhammad xam xol bu rafet bi nekk ci rasulullah yi xam yiw gi nekk ci sayyidina muhammad mu ñëw ni yàllaa ma yónni xadija xam ni kii li mu wax dëgg la lenn ci waa Makka xam ne li wax dëgg la te ñoom ñu ko bañ ñoom la ñoo ko wóolu woon ñu embargo ko Mansour ibnu Ikrama bind kayit ga ne Mouhamed ibnu Abdullahi ku mu dugg këram di ñaan jabar bul ko may Mouhamed ibnu Abdullahi bu kenn dugg këram di fa ñaan jabar Mouhamed ibnu Abdullahi lu muy jaay bu kenn jënd Mouhamed ibnu Abdullahi buy jënd bu ko kenn jaay ku mu romb nuyu ko bul ko fay bu ko kenn nuyu nanu ko ba sallallahu alayhi wa sallam. nañu ko ba moom rasulullahi Xadija naqarlu loolu parce que gis na ni Seydina Muhammad am na lu métti lu ko dal dérangé na ko moom Xadijatu yonent bi nekkee noonu ci yiiwam nga say mbokk bala dëkk bi nga juddoo yaroo ca dëkk ba waa dëkk ba bala Xadija yi naqarlu loolu moom Xadijatu bintu Xuwaylidin naqar bu jàpp ko wax nañu ni naqar ba moo rey Xadijatu sallallahu alayhi wa sallam waaye nag décision bi mu jël mooy mission bi pour mu dox mu yonent bi alayhi salaatu wa salaam il faut que ay ndijaayam dimbali ko dala départ Makka ànd ak Zeyd ibnu Haarisa parce que Zeyd jaamu Xadiija la woon. yonent bi alayhi salaatu wasalaam doon ne ko ci xadijatu am na leneen lu mu doon ci xadija boo demee màkka da nga di daañu la benn quartier bu ñuy wax xajuun yonent bi amoon na fa kër goo xam ni mi ngi ko doon ci xadijatu dañu dem ci waawoon laaj ko sama maam Seydi Xaaji Maalik mu ni wa wa wa min xadijatu daaran lil xajuuni xawaaxir lu wara wa daaran waaw wa xawaa làq na moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daaran kër min xadijatu ci xadijatu bintu Xuwaylid nga xam ni bokk na ci kër yi mu donn ci moom waaw 49 ans yi mu Abu Talib dee na Khadija naqar ba jàpp na ko mooy embargo bilu nu embargo borom këram te moom Khadijatu xam na ni lu yàlla bind kii ci gën lu yàlla bind moo ci gën a baax kilifa yi moo leen gën a nekk kilifa ñi mën njaboot moo leen ko gën a nekk naqar boobu jàpp Khadijatu ba Khadija dee kon Abdoulaye Baye ba dee na Amina ndeyam ja dee na Abdul Muttalib mi ko yor dem na Abu Talib mi yor dem na Xadija di soxnaam si ko dimbali teg ko ci montagne bi wane ko Xadija génn na àddina Seydina Muhammad ni naa dem samay ndijaay pour ñu dimbali ma te la génn Makka moom rasulullahi dem na Taayif um yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na fa un mois ma nga ànd ak Zeyd ibnu Xaarisa ndijaayam bu ñu wax Abda Yaaliya ndijaayam bu ñu wax Mas'ud ndijaayam bu ñu wax Habib ñoo woo xalay taayif pour ñu yuuxoo rasulullahi sànni ko xeer ay nijaayam lañu waaye ñooñu seen i baay ak abdul ak ak wëh bu mi jur amina ñoo ay ay doomi baay lañu ñoom seen i baay seen i baay ak wëh bu ay doomi baay lañ ndax amina wëh ko jur wëh bu abdu manaf jur ko suuratu jur ko kilaab jur ko kon ay mbokk si gina muhammad lañu waaye bokkul ak ndijaay yi bokk ak si gina muhammad ndey ak baay samaam ni axwaaluhu aswadun abdul yahuusi furayatun wa faaxiratun zarqaanu jaabihimi abdul yahuus mook amina bokk baay aswad wax ba ko jur mook amina bokk baay furayatu tantam la mook amina bokk ndey ak baay faaqila la mook amina bokk ndey ak baay ñu yuuxoo Seydina Muhammad di ko sànni xeer moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma nga naan Zeyd ibnu Haarisa fompal ma sama deret sama deret suuf coono bu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daj ko te ci naqar la bàyyi ko naqar la jóge parce que Abu Talib bàyyi ba dee na Xadijatu bintu Xuwaylid borom soxnaam su tedd su baax soosu le dee na moom Xadijatu dem na Taayif pour ñu dimbali ko ñu ngi ko yuuxoo ko sànni xeer Jibril alayhi salaam ne lay jëpp ne ko asalaamualeykum ya Abal Xaasim asalaamualeykum ya rasulallahi yàllaa ngi lay nuyu mbaa yëg ni yàllaa ngi lay nuyu sa waa rek ka daan dégg yàlla na àddina bii. ñaari montagne ko séq joxel ndiggal mu yam fi mun yàlla ñi xamuñu ma jibril neel yàlla xamuñu ma bu nu ma xamoon du nu ma yuuxu xamuñu ma bu ñu ma xamoon du ñu ma sànni xeer xamuñu ma te booba def na taay weer moom yonentu bi alayhi salaatu wasalaam rasal mam Sidi Xaaj Maalik ne am na ci loo xam ne maanaam bi bihi misaalin du ko tudd ci sama làmmiñ mukk tey du ma ko bind la Seydina Muhammad daj foofa la ko def ci mettit la ko teg ci ay coono moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu dem ba mu leer la ni ñii di ko yuuxoo ko sànni xeer bëgg koo rey ay adversaire la ma ay adversaire am lañu jibril ñëw ne ko yàlla nee na at joxeel ndigal ñaari montagne yi séq dëkk bi ñu dajale ko montagne bi yam fi ñëpp dee muy baal naa leen baal naa leen sallallahu alayhi wa sallam jibril neel yàlla ñii am na ñuy fàqikoo ci seen ndigg daañu ma mës a bëgg man rasulullah xam ko moom borom bi subhanahu wa taala bëgg ko baal naa leen kon ca la ñu wax ni bu fekkee rasulullahi dafa doon def examen keroog d'office la génn moom sidina Muhammad bu fekkoon am na lu yàlla seetlu ci moom keroog yàlla bég na parce que alxalqu kulluhum iyaalullahi mbindeef yëpp njabootu yàlla la ñu te ki ci yàlla gën a bëgg mooy ki amal nit ñi njëriñ donte ñooñu ña ngay lor la surullahi ay njabootu yàlla la ñu yonent bi ne jibril ñi xamanu ma yàlla baal naa leen sallallahu alayhi wa sallam lawla nabiyu rasulallahi laxturimu bi laxsha bayni walakin mën na bil karami waaw law la nabiyu rasulallahi laxturimu bi laxsha bay nii waaye walakin mën na bil karami laakin nag bu la ko arab waxee mooy lil istidrak mu ni bu nekkul nag ku nu solooka kon ñaari montagne yi séq àddina àddina bi yem fi waaye walakin mu ni waaye li fi nekk nag mën na bil karami kii dafa tedd mu sayyidina Muhammad waaw sallallahu alayhi wa sallam ci la jógee ci tukkeem boobu ñibbisi te ba muy dem dafa metti ci moom parce que amatul beneen soxna bi mu ñibbisi moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca la dem nekk umu hëni umu hëni mook si naa leen bokk ndeeg bay umu xëy ni jàkkaarloog Sidina Muhammad yaram ba am ay góom ndax la ko waa Taayif doon def yaram ba am ay góom ndax xeer yañ ko doon sànni moom rasulullah yaram ba am ay góom ndax coono gi mu daj moom Sidina Muhammad génnee makkatal mukarram départ dem Taayif yaram ba am ay góom moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam umu hëri di ko fajal góom ya sallallahu alayhi wa sallam mu gëni fajal ko gumi moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une mooy lakaar ci weer wi ñu dugg te weer weeru rajab nga xam ni bu fekkee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mën nga ndam bi gën a fort ci lislaam mooy weer wi la woon te mooy rañaan gi mu départ moom Seydina Muhammad départ wuyu ji borom bi subhanahu wa taala ci la Sëriñ Sëriñ Mouhamadul Fadil Mbàkke gane àddina Sëriñ Fàllu muy kazu rajab ci weer wii la woon ci la Seydina Muhammad wax ni weeru rajab premier alxames ci weeru rajab ku ci woor la ca nekk ci ay ngëneel ak i teraanga kenn xamul lu mu toll waxuma la sax nga woor weeru yëpp waaye benn fan rek nga woor ko ci rajab kenn xamul mu toll mu del siwaat fii ci mu mukarram nekk nekk umu hëni umu hëni mook Aliou ne bokk ndey ak baay Abu Taalib a ko jur waxoon naa la Abu Taalib ak Abdoulaye mi jur Seydina Muhammad te bokk ndey ak baay Abu Talib nag moo yor njool Màkka bi mu amee huit ans lañ ko ko dénk ba mu am quarante neuf ans huit mois onze jours Abu Talib dee Umu Hani moomu jigéenam la mook Seydina Ali boo ko nekk bàyyi néegu Umu Hani la dugg boobu Xadija gi nàddina njool Màkka amul beneen soxna waaw ginnaaw Xadija nag bu ñu la laajee Seydina Muhammad mi ngi takk ndaw suñu naan Sawdatu bintu Zamaa waaw Sawdatu bintu Zamaa boobu zaatu sinni wala xërëm yi boobu Sawda mag la woon waaw Seydina Muhammad jël ko. waaw na Aïcha nee na musumaa gis ku ragale yàlla ni Sawdatu bintu Zamaa musumaa gis ku baaxii ni Sawdatu bintu Zamaa musumaa gis ku mën njaboot ni Sawdatu bintu Zamaa waaw mu ni Sawda na Aïcha mooy wax daan na wétali Sayyidina Muhammad ba njool Makka daan ree ba dëgg ja génn moom Sawdatu bintu Zamaa ginnaaw Xadijatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam Sawdatu la jël waaw ñu may ko ko waaw après Sayyidina Bakar jël jël jël jël ñu jël Aïchatu may ko Sayyidina Muhammad may ko Maymuuna waaw may ko Xafsa nga xam ne doomu Seydina Omar la waaw waaw may ko Zeynab waaw moom yonent bi alayhi salatu wasalaam après Maria al-Qibti Maria Maria Maria doolu la daal di ñëw te Maria ba mu ba mu daal doora ñëw moom Maria al-Qibti ba mu mag a ñëw ca Madinatul Munawwara waaw boobu fekkee na Xadija génn na àddina waaw sallallahu alayhi wa sallam Maria juróom benni doom yëpp Xadija leen jur Xadija jur Xaasim moo jur Abdullahi Roqaya di taawam Zeynab topp ca Umu Kulsum Fatima di caatam juróom benni doom la Xadija am ak Rasulullahi benn doom la jurul te mooy Ibrahima Maariya moo ko jur waaw Maariya moo ko am amoon na benn giir sax ñuy wax banu Sulaymin ñoom wax nañu ni ak lu mën a xew ak lu mën a xew xam Muhammad suñu goro la ñu ne ah, mu ne ndax ñëw na ba ci sunu xeet takk fa soxna waaw lu nit di puukareewoo ci moom ñun daal dañ naan moom suñu goro la banu Sulaymin ida ma faaxaroo nasaban ñoom tafaaxaroo bi rasulillaahi waaw ak kuy mën a tiitaroo ni askan lañu ñoo nabee bokk askan ñoom li ñu tiitaroo ci moom ñoom baru suleymin nee nañ seydina muhammad seen goro la sallallahu alayhi wa sallam umu fajal ko góom ya une heure mooy la kaar jibril ñëw tiim ko nabi siggi bu nelaw nag bët yaay gëm xol ba du nelaw Cheikhul Xadim radiyallahu anhu Sëriñ Bamba dafa wax ni tanaamu ayna rasulillahi waaye wa qalbuhu lam yanami Sëriñ Tuubaa dafa wax ni radiyallahu anhu mu ni Seydina Muhammad bëtam yi mu daan dëmm Cheikhul Xadim ni waaye xol ba nelaw moom rasulullah ki nabi xool Jibril ko guddi na heure bi du sa heure guddi la une mooy la kaar mun ko yàllaa ma yónni nabi toog ne ko waaw mun ko yàlla nee na tey jii moo la invité invitation boo xam ne mosu ko invité kenn yàlla nee na tey jii moo la invité invitation boo xam ne dootu ko invité kenn yàlla nee na nga jug mu ne bërëg sangu ak jekku ak taaro yeesal njàppam jibiru teg benn bool mu ko bool bi lan la mu ne ko yàlla nee na booy jàpp sa desenu jàpp li na ko bàyyi ci bool bii mu ko ah lu tax dama ko yóbbaal jëm na lu mu fay def urul ay nii laa koy jox kenn ku ne capp sa loxo sëlmu ndax sa taar yokk sallallahu alayhi wa mbokk yi koo xam ni booy booy lim say mbokk boole ko ci koo xam ni booy lim say xarit di boole ko ci kooku ndax jar na topp sunnaam jaru ko kooku ndax jar na bëggam jaru ko yàlla bind moom yàlla ni ko sama ngëneel sama teraanga xaw ma ko koy miim waaye du yow wa kaana fadlullahi alayka azima jox naa la ko ba mu doy ibrahima bëggoon na ko amu ko incha bëggoon na ko amu ko Daawda bëggoon na ko amu ko Souleymane borom nguur nga bëggoon na ko amu ko Zulkifli amu ko Ilyasa amu daaniyal amu ko ba Isa barki dimbu amu ko samaam aadama amu ko siis amu ko yunt yàlla noox amu ko Idrissa amu ko yow mi yaa ko am mooy gis ma jugal am de bërët yéeg caal buraax dara sëriñ Bàmba lamina maa amina ila lamina fawqa amina bil asqiyaa i sëriñ Tuubaa piir ku nu wóolu ko ànd ak ku wóolu ñu yëg ci ku nu wóolu jëm ci buur buur ñi te mooy borom bi subhanahu wa taala te mooy jibril muy sangu malaaka alburaax bi nga xam mooy sangu buraax yépp waaw ànd ki ki gën ci li yàlla bind te mooy Seydina Muhammad sa maam Cheikh Seydil Hadji Malick ni asra tashrifan li miknatihi xataa raa maa raa min ayihi ljusumi asra nag ci grammaire arab fi'lu mutaaddi la bokkul ak sara sara fi'lu laazim la asra fi'lu mutaaddi la xam nga naan na ak nandal na du benn naan na ak nandal na xam nga du benn naan na ku naan rasulullah ku ko nandal borom bi subhanahu wa taala wa kullu fi'lu mutaaddi yansibu maf'ulahu mithlu saqa wa yashrabu naan na ak nandal na du benn wala asra rañaane na allahu yàlla bii sayyidina Muhammad tasrifan ngir ga teral rasulullah waaye ngi limite yi ngir yokk darajaam rek ba yun ci yàlla Moussa mën demandé woon audience xam ne Seydina Mohamed parce que yun ci yàlla Moussa bul fàtte waxoon na yàlla dama laa bëgg a gis parce que Moussa la yàlla mayoon allo yàlla allo Moussa allo waa Moussa yàlla yi wax Moussa yi dégg wax yàlla yi di ak moom Moussa di dégg kàddu borom bi subhanahu wa taala mais waxoon na yàlla dama laa bëgg a gis xamulu ko yàlla wax daf ne ko Moussa mu ne ko la labbeeg mu ne ko lan taree nii mënumaa teg bët te bu lan nag xam nga bu ko arab waxee génneel sa xel bu ko waxoon lam sax mën na dem ba dim jimbi jamono yàlla woo ko mi def ni ko lan parce que lan xarfu nafin wa jazmin wa xalbil mudaari maadiyan bokkut ak lan lan nag bu la ko arab waxee génneel sa xel waaw lan xarfu nafin wa nasbin wa stibaalin wa tayidin yi sëriñ Tuubaa bi muy way rasulullaay wa huwa akmalul wara xalqan wa xulqan zahra wa mislu qattu lam yura wa lan yura fi siyami dégg nga wa lan waaw lan xarfu nafin wa nasbin wa stibaalin wa tayidin moo tax sama Cheikh Seydil Hadji Malick wax ne li miklati yi ngir yokk dara jaam waaw. moo tax Saadul Abibu Mouhamad Fadel maami Tall bu xeer bu jëli Muxtaar maami Serif Aliou Ly Maana Ndiaye Cheikh na Cheikh Saad bu ne ko maam bu nekkuloon ak yow mbindeef du am. maam bu nekkuloon ak yow duñu talal ko abay sujjóot dara du am ngëneel ak teraanga maam yàlla jël na jox la ko lawlaahu ma kaana al wujudu fi l wujudi wa lam yakun lana rukuu'u wa sujudi Cheikh na Cheikh Saad bu Mouhamad Fadel maami Serif ba. jibril yonentu bi jóg sangu ak jekku ak taar wa ñu départ dem Jérusalem mooy baytul maxdis ñu dekkal ma ñu dekkal yonentu yëpp aadamaa nga fa 124000 prophètes yi sayyidina Muhammad jiite leen ñaari rakk way ko arab ba waxoon ko ni ko wa taxaddamta li salaati fa sallu kulluhum muxtadin wa anta al imaamu <laughs> mooy premieru premieru premieru première yi moom rasulullah mu départ baytul maqdis yéeg dem asamaan yi juróom-ñaar dem Tiwaawan laaj Seex Seydi El Hadji Malick mu ne asamaan bu ne xam naa yonent bu ko teeru ñu ne ko si yaa nu waxoon bu nu jàngi mu ne bi aadamin ma raisee yuusufin wa xanuuxin suma hëruuna muusee wal abi rahimi mu ne premier asamaan aadamaa fa teeru Seydina Muhammad deuxième asamaan yonent yàlla Isa yàlla Yuusufa fa quatrième asamaan yonent yàlla Idrissa moo fa ne waaw bi aadamin marra isa yusin wa xanoo su ma xëru na yonent yàlla xëru moo nekk juróomeelu asamaan yonent yàlla Muuse nekk juróom-benneelu asamaan yonent yàlla Ibrahima nekk juróom-ñaareelu asamaan kenn ku ne rëkkal ko junj junj asamaan teral Seydina Muhammad wan ko sax cofeel ni a ah, yónni nañu ko nabi kite asamaan boobu dem asamaan ñaareel isa ne fa ñetteel ba incha allah bi Adama raisa Yusuf Yusufa nekk fa ñeenteel ba Haruna nekk fa juróomeel ba ah ñeenteel ba Idrissa juróomeel ba Haruna juróom-benneel Moussa juróom-ñaaral bu ñu tal Ibrahima ba juróom-ñaaral asamaan yëpp jeex na wi bëtt asamaan juróom-ñaar romb Sidratil Muntaha bañ àggee ba Sidratil Muntaha ci la ko Jibril ni su ma passé benn jéego léegi aras lakk ma. benn jéego su ma ko jéggee léere aras lakk ma nabi ne ko jibril xaw ma fa fi nga may ba mu ko avancel yonent bi bi mu ñëwee nee na dégg naa juróom ñaan fukki junni yoon soixante-dix mille fois jibril nan ma avancé te àgguma kër yàlla te loolu lépp bokk yi xam nga kañ la am ginnaaw bi mu demee taayif tukki bu metti boobu ginnaaw voyage am booba ca taayif moom yonent bi alayhi salatu wasalaam nga xam ne bu fekkoon day def examen keroog at me na mu mel ni yàlla da koy teral yàlla daa bëgg ca la mu def moom yonent bi alayhi salatu wasalaam bi mu àggee bayam ci tapi boo xam ni wurus la ña ngi ko ràbbee zabarjad ak marjaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam dox ci tapis bi mu gën a nooy dox mu teggiwaat tànkam arrière dégg benn kàddu jibril ne ko looy wàññeeku yaa rasulallahi da ngaa ragal demal nabi ne ko jibril ñett ñi yàlla du leen yónni mun ko ñan yàlla du yónni ko ñaaw du yónni ko amul fit du yónni ko ragal boo amul fit da nga yomb ndogotu boo amul mbokk boo amul fit li nga war a wax doo ko wax boo amul i mbokk da nga yomb ndogotu boo ñaawee nag loo neex a bëgg bay neex a gëm bay neex a déglu ci la Seydina Muhammad jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala xamul lu muy nuyoo yàlla yàlla sànni ci xel ma mu ni ko attaxiyaatu lillahi azakiyaatu lillahi atayibaatu salawaatu lillahi yàlla fay ko ne ko asalaamu aleyka yow itam ayuha nabiyu wa rahmatullahi alayka wa barakaatu it alayka malaakaay fa nekkoon waa réception ba ne assalaamu alayna ñun itam wa ala ibadillahi saalihiina nabi indi ko ñun ñëpp ñu seede ne ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu mbokk yi day fonk kilifaam bu santee dara bul xaar mu la cay soññu yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla yónni na ko dem na taayif ci xalaatu boppam ci fitam ngir mission bi ko borom bi subhanahu wa taala sant mu àggale ko mbokki mi ngi noonu siiraangoog ñaanati borom bi subhanahu wa taala sunu cofeel ci Seydina Muhammad yal na ko yàlla gën a dolli incha allahu taala maa ngi ñëw